jaajëfalaat bu baax ah, yéen ñi topp fii ci Leewtoo TV di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour neena naa leen Leewtoo ak nii la koy defee saa su dem ci benn koñ fekk fa jeune li mu mu xarañ ci làmb ñu toog war waxtaan ak moom ci lépp lu soxal làmb ak li soxal mbër bi ci boppam tey nag ñu ngi fii parcelle unité dalal beneen beneen jeune beneen daanan xale boo xam te ne ràññee nañ ko ci làmb lutte avec frappe mais aussi ci lutte avec euh, lutte simple ñu war koo nuy waxtaan ak moom ci carrière fan la jaar fan la jógee moom mooy kan kon booy bawal maa ngi leen maa ngi lay nuyu Ndeye Maguette di la delloo fay di la ziar bu baax di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaw rek moom Serigne Fall ñu ngi sant waa Parcelles yëpp ak waa Cambérène ak waa Mbor ak waa Bawol ak sama waa kër fii sama yaay yàdda xam nga di ziar ñëpp nag ñi fi nekk di nuyu ñëpp di la nuyu di la jaajëfalaat di la xamal ni booy bool a ngi nii daal. Boy Baol nii suñu mënoo waaw booy bool mu nga dëkk diggante Cambérène parcelle rek yaakaar naa nekk ci làmb rek di bay waaram nekk benn booy comme ñëpp rek di fooyoo bëre dëkk fii tuupere si géej gi xam nga ba virisu mbër dugg ñu rek ñun mujj ñëw doon mbër rek noonu la yàlla dogale avant virisu mbër boobu booy bawal lan nga doon def avant ngay dugg ci làmb non booy bawal ci oto yi la nekkoon à dawal saret xam nga ma dawal saret temps booy mais la ma dem si oto yi xam di jàng métier ba am permis nekk sa wóoru camion yaa ngi ci ba léegi wala da nga ko bàyyi. waaw maa ngi ci ba léegi mais wax dëgg yàlla làmb moo ma gën a tënk nii waa li may xëy bëriwul. Mhm. làmb moo tënk làmb moo tënk ñëpp booy bawal suñu mënee xam lan moo dugal ci làmb ban ban idole moo tax yow nga tëb tëb ne ci làmb ngay visé wu bàyyi sa métier. waaw mais làmb moom mën naa tey dama ñëw fekk xam nga samay grand góor a soog comme comme sama doomu baajan la dañooy ànd muy bëre xam nga ma ñëw nekk benn booy suy bëre ma koy seetaan. suy dem géej di contact man tamit ma ñëw géej di contact ak samay morom di bërentu ba loolu dugg ma rek ma commencé bindu si mbapat koñi nii ay paquetu miskit ay paquetu meew ba tey ma commencé nag commencé doon mbër quoi. bëri nga lu lu bari. non lu simple kay sama àdduna bépp moom la <laughs> waaw. naka nga dundee sa premier combat arène. waaw sama premier combat arène ah, ci góor a soog Jokal man ak teem ak si bu Grand Yoff mhm. comprendre nga ah dañoo ñëw rek pare ko dem bëre si yàlla may ñu ndam waaw parce que avant ñu koy bëre am na fu ñu jaar ba yegg si foofu moo tax. Boy Baol ñaata combat ñaata défaite nga am ci arène bi. am naa huit combat am ci deux défaite am si ñaari grand combat. kan ak la daan. Issa la moom a daan Pathé Boy huit combat laa am. ñoo dundee sa première défaite. ah métti rek parce que dama tegle woon su ma juumul trois victoire ñëw jàpp ne waruma daanu xam nga na ñëw bëre daanu. loolu yàlla dogal ko mu ñëw bëriwaat daan bëriwaat daanu ñëw bëriwaat daan bëriwaat daan bëriwaat daan ci laa xamee làmb daal. waaw ci la moo defet moo def mbër. waaw defet boobu moo def mbër xamal ni ma man lii laa war a doon. ak li ma war parce que li topp sama ginnaaw di question daay caaxaan ne mais bari sëñ Fall dafa bari su may génn su ma bëree jee da nga koy xam. sama génn événement la fii kon instant lu may def si làmb rek day leer quoi. muy noonu nga ne def nga lu simple bëri nga bëri nga arène. sa parcours yooyu ba ba nga yegg si fii lan moo la ci gën a marke waaw mais day mel ni rek li ma si gën a marqué tey comme man nu ma nekkee nii booy rek di bëre dem bay bëreek samay mag rek di am si ñoom ay ndam xam ne loolu sant yàlla rek comme tey su ma demee ba dugg ci làmbu lu simple gaa yi bàyyi ma ci xel ma dem bay bëreeg ay pakala ay assurance bu mbuur ay sele ay pam ay ñoo xamante ne man dama leen doon seetaan. xam nga ay ku nekk mbër yoo xam ne mënu ma lim sax ñi ma bëreel ñëpp amul parce que ku ma fi bëreelul fii te yàggu ma si làmb sem la ma ñëw def poids la sa ma noonu laa koy bëree yee mais tey loolu kontaan naa parce que ba ma leen seetaan goo mënu woon ci bay bëri ay lan 2000 la ki loolu rek laneen la quoi mhm. ci noonu ñu gis nga miser trop ci lutte simple bi lan lan moo tax nga favoriser lutte simple. waaw dama gëm ni rek dañ fa war a ñëw jàng si parce que boo fa jàngee rek xëy na amaana boo génnee mu neex comprendre nga mm-hmm. parce que man damay def li simple parce que bu ma koy def booy laa te maa ngi doon nekk si àll bi di bëri raw gardu lool ku dëkk côté ndàngaan wala joof yor xam nga li may wax mm-hmm. fa toogoon di def raw gardu di bëri raw gardu di ko jël nag lu bari mm-hmm. billaahi ba nu ma yéege poids lese di dem ay côté Fatick région Fatick ay yengale lu ko wër noonu di bëre ay mbet it commencé noonu ba commencé wàcc si Dakar commencé bëre poids lese xam nga ñu bind ma ci fobare yi ni ñu ko mën a jël ci laa bokk saa yu ma nu ma xëyee ñu ma jour bi ma jëkkee peese aj ma poids lourd demi final a bëreeg assurance quart de finale génne ko. billaahi. ci noonu nag démb ñu gis ci gaal gi te gisuñu nga hmm. xam naa mu demee la rek xam nga écurie yi am na yoo xam affilié wuñ loolu moom loolu moom a trompé te trompé na mbër yu bari am na si mbër yoo xam nag licence individuelle yi moo tax ñu am sens mais nag ñun dañ nekk si équipe di bëre bëre dóor di bëre bëre simple ñaar yëpp lañ boole waaw loolu moo waral démb demuñu mais incha allah nañu gars yi xaar rek ñu ngi ñëw <laughs> su ñëwee mu neex. ñëwaat en force. non day gën a neex rek ñun moom li ñu ko doon defee dara du changé de ñu ñëw fecc rek bëre amateur yaa ngi toog xam nga ñoom xamee nañ ko ràññee nañ tamit. <laughs> ci ginnaaw rek. gala bi nga xamante ne woon l'ancien roi des arènes moo ko teg mu Yékini nga dem final yaa nga xamante ne mooy Franc ngeen bokk benn gox nan nga dundee loolu noonu. waaw dundee moo ma damaa jàpp ni làmb la rek. Mhm. te damaa comme que dem naa moom final. mu daan ma damay jàpp ni làmb la ndaxte moo ma jiitu ci làmb te moo mag kon su ma daanee dagan na mais damaa gëm ni man tamit bis na ñëw ma jël ay làmb ndax làmb ji diisoon na trop keroog mhm. te boo xoolee man maa bëreeg mbër yëpp parce que moo bëre ak Sele assurance laa bëre premier tirage Sele deuxième tirage Goro Sock Pakala bo ah, ki ma bëreel demi-finale Tony kon xam nga ne man làmb ji keroog li ma fa bëre ci poids maanaam ci favori yi kenn bëreewul ak ñoom yàlla dogal ma dem ba génn si ba yegg foofu ah loolu moo doon sama wërsëg keroog xëy na mais beneen yoon dina baax. <laughs> incha allah beneen yoon dina baax Boy Baol ñu gis nga jógee fi nga xam mooy olympique bu ñoo fi nga xam te ne mooy lan moo waral changement boobu noonu nga jógee olympique dem dóor dóoraat. waaw om na gaa <laughs> Babacar sama combat ak albarka mi ngi wax loolu mais boo déggee mu waxee ko noonu maanaam xay na lu may lu may ànd lu may ànd ak booy boo la moo tax mu wax loolu mais man fii ma nekk nii écurie Dóor Dóoraat foofu laa mos a nekk mosuma nekk neen écurie mosuma dem beneen écurie ñëpp xam nañ man nañ ma seede dama doon dem di seetaani ba yàgg may dem commencé waxtaan ak Camara maa ngi koy nuyu mi ngi étal léegi Ousmane Camara sunu entraîneur bi ci laa demee écrire doo duraat nekk mosuma dem ngor xëy na li ma ànd ak sa waay nag loolu moo waral te c'est normal man ñu bari mën ko ça veut dire que doo duraat da a nekk depuis. non doo duraat moom naa la ñu fa mujj ci laa bokk. Mm. parce que 2016 boobu noonu laa fa ñëw ci laa bëre waaw parce que man doo duraat laa mos a nekk mosuma nekk beneen écrire wax dëgg fa yàlla. ginnaaw ba Zoss euh, bàyyee làmb bàyyee li ngay nga xam te ne mooy Garga Mbossé ñi dégg temps yi ci weebu bay ñu ne Garga Mbossé dafa nekk di xalaat sax la ñuy wax pour bàyyi làmb lan ngay wax ci loolu. <laughs> Garga Mbossé. ko de. <laughs> waaw weebu bay dinañ ko laaj bayu de <laughs> ndax xam naa ne bayu moom foofu ñu laaj ko loolu moom. Mm-hmm. parce que Garga moom démb la ñu ngi déggante. Mm-hmm. démb ak ah, safara tey suba sax damaa juum. Mm-hmm. Garga Mbossé musul bàyyi bëre bàyyi bëre. kër kay sa waay lu am ci làmb nii moom. amatul làmb nga koy teral amul nu muy bàyyee bëre su bàyyi woon bëre sax day yàq carrière am xanaa mm. ah fi mu toll ci làmb nii. mais au fait dóor dóoraat lan seen problème instant bi je comprends yi xaaj bi ñu ngi jógee dóor dóoraat ñi dem ci yeneen écurie lan mooy problème bu dóor dóoraat bi amatul staff wala. waa xëy na loolu lépp xëy na ñoom seen ñàkk réeroo rek ñoom ñoom ñoom mbëri mag yi ci biir xëy na seen réeroo la laa bëgg a wax mais dama jàpp ni dóor dóoraat ñun fii parcelle kun fi gënul écurie gënoonu écurie Dakar ba mu daj sax laay wax kenn ëpp ñu ay mbër yu mën a bëre kenn ëpp ñu ay mbër yu mën a contact wala ay ponkal mais xëy na tamit ñoom ñi fay jóge dañoo dem ba yàgg xëy na gisatuñ lu leen fa neex wala ñu gis fu leen gënal ah ñu dem ku nekk tamit fi la gënal léegi ngay de naajoo ma gënal ñaambi moom kenn du ci xeex. kuñ tëj sa avocat moo baaxul. waaw kuñ tëj sa avocat tamit baaxul kon rek yàlla la fa yàlla defal jaamu ñun ñi fa des nag ah ñu des fa rek góorgóorlu <laughs> ñu xool mu ngi noonu Zoss bàyyi na Garga Mbossé mu ngi fee ca États-Unis ñu ko fay ñaanal jàmm di ko ko saluer au passage yéen yi des ci écurie bi est-ce que yéen a ngi entraîné wala yéen déggoo wala staff bi mu ngi taxaw. ah man de wax dëgg fa yàlla man moom man chaque jour maa ngi entraîné parce que xam nga lu tax sama sër laa jël di diri ànd ak samay ñaari nit wala ñett di bëre ci àll bi fu ne laay nekk kon man xaaruma kenn parce que man li may bëre dafa metti muy làmb mbapat bala ngaa lekk dara mën nga bëre six combats ci benn jour mën nga bëre ba ñuy nodd fajar. kon man sama entraînement moom du ma ci xaar ma sàmb du ma xaar ma dem ku ma gis nag ñu demaale ku ma gisul tamit damay dem te ku ma xool xam ne man damay entraîné parce que dangay xool bu ma duggee ci làmb ak nu muy bëri ak nu mu demee loolu rek mooy wax ji pour uwa mais gars yi nag amaana xëy na ñoom ñëpp den dajaloo waat entraîné mu gën a neex ñu ngi pare de parce que wax dëgg fa yàlla garga woo nañu ñu waxtaan waxtaan bu sérée ñun ñëpp avant muy dem rek ba ci néegam ma toog man mi mu waxtaan ak waxtaan bu baax daal xamal ci yoon bi mu ñu war a teg te moom tamit nit ku baax la kon daal ñu ngi ci si gannaawam ñun ay rakkam lañ même bu sos bàyyee ñun ñu ngi ci ginnaaw garga comprendre nga. ki nga xam nii mooy euh, Modou Lo war a bëre Ama Baldé combat lan nga ciy wax. ah di ñaan yàlla ndam rek comme ni ñu ko doon waxee rek xam ne Modou Lo moom làmb ji làmb parcelle la na ko def làmbu àdduna bi sax mu gën a neex benn yoon xam nga loolu mooy gën a yomb ndax mu gën ko respecté mais Modou xam na lu ko war ci combat bi moom. dañ <laughs> ko ci ñaanal ndam rek mais xam na lu ko ci war de. sëll bu ndaw bi nee na buntu këram ngeen di bëree te moom da ko jël yóbbu. kër. buntu këram Pikine. waaw national ngeen koy bëree moom da koy jël yóbbu. waa loolu moom loolu moom du kaa moom xam nga loolu du kaa da dem si dëkk mbëru dëkk bi ngeem xaalis bi gën dëkk bi <laughs> loolu moom du dara <laughs> waxin la rek mais la yaakaar naa lu métti métti moom moom mu loo ñooy des si géew bi wax dëgg yàlla waa noonu lay mujj demee rek ñu ñaanal Modou Lo ndam tamit. di ko xamal ne tamit am na combat mais tamit xam nga na pare rek. nga nekk jeune nekk fi nga xam te ne mooy parcelle parcelle def 100 pour cent euh, ñi def 100 pour cent parcelle association boobu est-ce que dëggu na wala gëm ngeen ko. ah gëm nañ ko de ndax gëm naa ñu ngi jàppalante mais man de wax dëgg fa yàlla man moom maa ngi ci luñ nekk rek man maa ngi ci mais tamit duma dem si kenn naan ko lii wala lee ku ma woo nag ma wuy la ku ma ni ma kaay kontaagal ma. ñoom parcelle mën nañ ma seede maa fi gën a bëgg contact wala billaahi wallaahi kon boo nee benn dooni ñaar man ku ma woo ma ñëw jàppale la boo amee sax combat mais tamit loolu la ñu wax nañ jàpp ne loolu la wax ñun ñëpp rek. Mm. Mm-hmm. jàpp na loolu wax. waaw Papa Sow war a bëri ki nga xam te ne mooy Siteu le phénomène de Lamsar naka gisee combat boobu. di ko ñaanal ndam rek mu pare mu xam combat bi lu mu ko mën a jariñ ak lu mu ko mën a xañ ci carrière rek mu xam ko comme que li ko desee lim fi defoon du ko fi defaat kon pour man combat bi war na góorgóoru pour daan te yàlla na ko yàlla may ndam am na combat mais yàlla na ko yàlla may ndam. loolu lañ ko a ñaanal tey soo doon conseillé Papa Sow nga nekk ci ginnaaw bi conseil lan nga koy conseillé ci mhm. combat bi. xam nga lan gis nga Ndeye Mbacke mbër dañuy réer des fois ba ci mbër mag sax mhm. da ngay bëgg a jël lépp teg ko ci musique mhm. te bu làmb ji bëree cinq minutes nga dagg musique yi sànni kon musique bi yaakaaratoo ko. kon lu gën a wóor ci lam mooy entraînement su ma ko doon xelal du ma ko xelal luul poisson mu ah, ma ne ko demal nga na ji ba pare doo ko def li ngay def mi nga entraîné nag mais loolu waxin na rek mais na entraîné ba xam ne bu duggee sax ki muy bëreel tiit loolu mooy làmb ji loolu rek mën na gañ a làmb ji sans mystique billaahi bari na làmb yi fi jeex ñu an mystique mbëri dañoo amul distance wallaahi benn coup la ñuy jël ñu taxaw wala ñu mbëkk la foo xamante ne dootoo taxaw wala ñu jàpp la jàppax doo rëcc parce que mu amoo kartan boo rasoo ba rëcc mais tamit dañ koy ñaanal ndam ñu xam ne làmb ji noonu la ñun bëgg nañ ko fonk nañ ko suñu grand la di ko ñaanal ndam bu baax nag mhm. di nuyuwaale père ba xam ma papaam ñu koy jàppale mu xam ne ñun ñëpp dañuy jàppale ñun waa parcelle ñu ngi koy nuyuwaale bu baax. Mhm. mu ngi noonu nag booy bool nga nekk parcelle parcelle rëy na yaatu na bëri na ay écurie yan relation nga am ak mbëru parcelles yi. waaw man moom xam naa ñëpp laa amal jàmm ndax man moom damaa neex waxtaan. <laughs> gaa yi ne kii sama copain fu ñu gis booy bool dinañ am na comme tey Girosera sama nit la. Mhm. yàlla moo dogal moo ñu boole maa moom. daf ma bëgg rek. Giro borom borom fajaar koy dëgër. xooluma sax ndax mbër laa wala du mbër. Mhm. su ma amee combat su ma nekkee ci kër gi sangu baay trois heures du matin. billaahi wallaahi moom moo may massage frotté ma. Mhm. du ma xam sax ban heure la ñu ma dem tëdd ci néeg bi sept heures ma yeewu nekkaat sama bopp. kooku moom sama nit la maa ngi koy ñaanal combat bi moom nag yaa yàlla na ko yàlla may ndam. Mhm. dañuy jàll benn entre parenthèse parenthèse rek ko koña koona autant pour moi ginnaaw ba Onde le Fou génnee attaque nga xam te ne mooy Gris Bordeaux président des lutteurs en activité koona beneen euh, beneen mbër mu ndaw aussi génnaat attaque Gris Bordeaux est que gis nga Gris Bordeaux li mu leen présider mu ngi ciy doxal wàllam. waaw mais moom Onde le Fou lan la wax ci kii. parce que parce que kii laa seetaan. koona on le fou nee na bu Gris doo génn waxati ci au nom des lutteurs Kona nee na Gris doo nekkalu fi lu dul intérêt personnel am ndax suy dem VIP yi lay yóbbu du yóbbu mbër yu ndaw yi. waa lenn moom mën naa ko seede doguma la sax ci côté Kona man groupe Dekkel Lamb boobu noonu bokkoon naa ci damay wax dëgg te yàlla tax rek xawuma ma Gris ni ma xamee di ma dégg sama tur ñu booy bi nangam noonu laa xamee Gris nii rek comme làmb ndax mënu ma ne xaw ma Gris Bordeaux kon waxuma dëgg. Mhm. mais moo Kona yàgg nañ xamante groupe dekki làmb boobu noonu man bokkoon naa ci am na ay Boy Kayre am na magam bi capitaine Payka mago Kona bi am na ay Bombardier mii sax ay Tafatine Balla Gaye dama leen doon dégg ñuy wax si groupe bi mais groupe boobu man maa si woon mais xam naa ne daal ñu doon gën a taxawal pour seen CNG bi mu dem Kona moom amoon yàgg na si am doole xëy na nag Kona ak Gris Bordeaux ñoo xam lan moo tax lan mooy seen problème fan la ñu réeroowee parce que réeroo nañ. parce que ñoom ñaar au bi dañ daan ànd parce que man damaa dégg ci groupe bi Maodo raku Giri ak Kona dañuy kaañoonte dañuy wax dafa mel dañoo seetaan dañoo waxtaan daal bu baax a baax a baax di kaf du waxante lu nekk yee xam naa nag erreur la Gris Bordeaux xëy na moom tamit bu fekkee moom lañ koy wax dëgg la moom moo ni moo ñu parasanté kon na taxaw suñu kanam dëggalal ñu lépp tamit ñuy gis man néew ma def na néew ma deful mais dama ne bu fekkee li gars di wax dëgg la Gris na taxaw wane boppam na taxaw wane boppam gaa yi xam ne Gris wane na boppam parce que làmb ji tamit xam nga ñun ñëpp ñoo ko bokk amul mbër bu ndax amul mbër bu mag Gris Bordeaux li muy renouveler licence am rek la ñuy renouveler sunu licence balaa amee wu ko defuma ko dara damaa waxee noonu rek kon bu fekkee moom lañ jiital nañu jàppale kenn sàkkul njiit yàlla mooy sàkk njiit jiitoom bi xay na yàlla doon na ko avant li loolu la rek. muy mhm. noonu dañuy di ñëw ci nga xam ne mooy suñu émission Boy Baol kan moo nekk sa waaw instant bii de sa waay man yaakaar naa làmb ji moom sa jar laa ay adversaire sax. ah pourquoi pas. pourquoi pas <laughs> mbir ay tàppet lañ. tàppet kan moo sa kanam. non yow limal ma yow ndaanaan nga war nga ma kan moo nekk sa kanam. non yow yow laa bëgg nga limal ma yow ndaanaan nga. loo xam-xam xaw ma sàmba lañ koy xaw ma sàmba gën laa xam bu xam. ma caméra bi. mais yow xam nga ni yow xam nga ni yow yaa si làmb ji. Mm. la xam làmb kan moo nekk sa kanam waaye di nga xam ne kii kat sama naataangoo la su ma ko jëlee war naa a dëpp jàll si deneen ko laay goote ñeme nga laay goote pare nga pour jël avance am dafa mel yaa ma mujjee seet si ma waxaat ko de moo tax ma ndax ñeme nga jël avance laay goote est-ce que doo dugg YouTube nga xool ma ñaata laa ko laaj non ndax ñeme nga koo jël laa pare nga <laughs> nday mbaagi xool ma bu baax man nañ may tegg man du ma tegg waate barki borom tuubaa laayal saaliw ba sama manager musuma teggi mbër musuma daw mbër yow kay lañu jox sama combat ñu la mbëru mbapat laa ay waxul man yooyu bàyyi moo sax xel man lépp laay def arène ak mbapat yëpp da ngay bëreew ci gaawaay <laughs> ma fi yaa tàng ñàng bi laa lay indile. Maodo gars yi dañuy daw deuxième. doo taxaw billaay wallaay gars xam nañ loolu bu baax mais man tey sama làmb damaa jàpp ne su jotee rek yomb parce que bu duggee si làmb ak léegi 2016 musuma année balance xam nga te 2016 ak léegi nga bëri fi ñaari grand combat tamit ndimbalu yàlla la. yàlla def nga gañe ko kon man amul sama benn morom boo xamante ne rek man nga ma bañ ba pare nag di daan ñoom ñu daanagul parce que xam nga ne ñu may daan ci mbapat yi boo leen joxee sama combat arène dañ naan nag maa yeb mais tournoi far force la tournoi la ñu wax layal saaliw ba sama ménageur barki sëñ Fallou mosuma daw mbër soxna si te du am ci àdduna besiawoo laa finaalu bëri huit combat ak final muy neuf booba amaguma licence mu ñëw ni ma maay doon sa ménageur wax dina ko dégg booba awuma noonu noonu ñuy waxtaan ba tasewaat ma jox ko sama numéro téléphone benn numéro tigo ma yoroon mu commencé di ma si woo ba ma am licence bi may am sama combat ak Tmax muy combat boobu dem top aw ma aw ma guma licence Saliou defal licence bi Saliou ba ci avance bi la ko jël defar ko bu ma ko fàtte ma ko mais nag yàlla baax na si kanam rawati bët nañ xool rek. si kanam rawati bët fan yii jaaree waaw di sant yàlla rek di tàggu waa Parcelles ak waa Cambérène waa Mbawar waa Bawol di nuyu sama yaay yàdda sama yaay nga xamante ni moom yaakaar na lépp moom la te comme que lépp moom la moom la dañuy jël lépp rek delloo ko ko te yàlla tax xam ma di sant ñi waa kër gi ñu fi nekk ñëpp sama rakk yu jigéen yi fi nekk ay awa Fatin Xadi waa Dengé Séeri Caat. ana madam Caat bu booy bool non man amaguma man maa ngi tànn yow laa xaar nga tànn ma yow laa xaar nga wutal ma yaa ma war a wutal yaa ma ko diggoon yow laay xaar wala tànn non man pare naa damay xaar nga wutal ma man loo bëgg bu taay fin wala taay lourd non taay fin ba non taay bu xees wala bu ñuul <laughs> non bu xees <laughs> waa gis nga maa ngi ñëpp nag xam di nuyu caat sama doomu nday maam góor di nuyu soxnaam xadi di nuyu musaa Ñuule sama doomu nday bu baax di nuyu tamit ñi fi nekk yëpp ay yàddamu ndaw fàttin sëñ Omar maa ngi koy sant bu baax daf may jàppale aada Jokal fàttewu ma sama grand maa ngi lay ziar daawa bi sëñ Omar Tafa bi Mbaye Njugatin Bada bi sama doomu nday Bada maa ngi lay ziar bu baax a baax Kanté borom Italie fàttewu ma la de ndaanaan le <laughs> yow moom da nga ciy jàpp chaque jour maa ngi mu daara di ziar waa parcelle yëpp nag di ziar waa daara ji nag waa dis interdis bàyyiwuma kenn di ziar waa Ndiaga Mbaye armée bi tamit maa ngi leen di bégge bu baax xam nga ku ci mel ne sama papa Boy Diop maa ñoom xaadim bamba nokkas ñëpp ay ñoom talfa saara sarko ñoom ñëpp daa rek maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp daal da xam tam su ma juumee xam nga nit motul su fekkee tamit lu ma wax rafet na xam nga ngeen jàpp ni noonu la ko yàlla bëggee noonu la mën a demee maa ngi sant sama mag Cheikh Dieng bu baax di nuyu ñëpp na di gërëm ñëpp di kontaan ci yow di wax nga dund 111 ans sans ordonnance 15 ans bonus xam nga li dem ma nekk ay télé yu mag yaag sa caméra man ah. amiin xale <laughs> maa la baal di la kontaanee <coughs> bu baax a baax a baax moom booy bawal nit ku baax la ku oyof ku disponible vraiment di ko sant di ko gërëm di remercier aussi waa kër gi ñu fi fekk ñëpp accueillir nañu ci jàmm bégg nañ leen bu baax a baax ci noonu nag laay dawee tàggatoo ak yéen tàggatoo bu dul jeex leen jox dig daje ëllëg ak beneen mbër incha allah ci Leewtoo TV maa ngi gërëm su Faar kontaanee naa la bu baax a baax love